على مولانا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين ورضي الله عن القطب المكتوم سيدي ومولاي الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه وعن وارث سرهما مولانا الشيخ الإسلام الحاج إبراهيم يس بوكي جلدي بوكي سنغال يب من دين ngi leen di ترم أكي سنتم لين دغال تي ديغالو خليفه بي شيخ احمد التجاني ابراهيم نس تي ديغالال نام الحضره شيخ احمد التجاني علي نسيسه تي ديغالال شيخ محمد الامين بابا ني لين دي ييغال خاو خاو بو ماك بو خامتيني ني نكوي امال فلي تي بامبيلور مو نيك فوكيلو يون اك muy guddi gàmmu buñ daan amal ci yonent bi sallallahu alayhi di ko ànd ak jàmbaari fukki tëj jooju ñi ci daan àndal muy Cheikh Ibrahim Mahmoud Niass ñaan yàlla dëkkale ko ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak soppeem bi Maolana Cheikh Islam Xaaji Baay bi Niass di leen wax ni bés bi mu ngi war a nekk incha allahu le 23 juin ñi koy yëgal ñëpp yëgal waa Sénégal yépp bawuñ kenn rawatina taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim yi nga xam ne ñoom déggeewuñ loo mooy yonent bi déggeewuñ loo mooy Mawlana Cheikh al Islam Alxaaji Ibrahima Niass nga xam ne bàyyi léppam yonent bi la fa kulli mashxuurun bi kulli muhammadin fa lam attaqis qillan siwaahu wa ma niltu léppam daf koo joxoon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam insha allahu bés bi nii lay demee danaam jàng kaamil ci suba gi ba waxtu añ jot ñu dem añ insha allahu boori une heure ba tusubaar yépp ñu dallu ngoon gi gannaaw buñ julee timis dañ def wasifa ak mbokki taalibe ya fa teew barab la ñuy defee gamu bi su ko defee ñu éewee ko gaaw dem reeri teel a ñëw ci tànt bi vingt-trois minuit allahu ni fas yéene dundal guddi gi ba bët set ci tagg yenent bi ci taggam yi nga xam Cheikh Ibrahim tagg na ko ko tam wax ñu ne mooy meññetu dundam taggam yi nga ne yonent bi nangu na ko gërëm na ko te moom waxal na ko boppam aleyka salaatullahi summa salaamuhu wa taqabalu am daaxi wa taqabal man yax kon loolu ñu ci invité ñépp di ci sàkku seen teewaay di si sàkku seen ñaan loolu mooy message bi nga xamante ne incha allahu ñu ngi ko doon jàllale di xaar teewaayu ñépp guddi gi ñu ngi ko tuddee soppeeb imaam Xasan soppeeb Cheikh Ibrahim Cheikh Abdou Ndaw Abdou Sall Ndaw mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci bëgg bàyyi moom lañ ko tuddee kon ñu ngi oo ci guddi gi ñëpp ñu ngi oo waa Ndoukoumane yëpp di séentu seen teewaay la ko daree ci Cheikh Alaaji Saalum Ndaw nga xamante ne mooy suñu waajur di suñu sëriñ ndax papaam mooy suñ buntu ci xadara bi ñu ngi koy oo di waa sa ci gangoon yëpp di o cheikh abdou barhama momit di suñu kilifa di suñu way jur ñu koy o ñi di o cheikh oussad damka ka ñi di o cheikh ibrahim ba godiba seeni lan yi daan cënguy bawuñ kenn ñëpp ñu ngi len di ho di sentu sen teway ñom ñëpp ci bis bobu di oo nak wa dakar yëpp ci mu xadam ya fa nek yëpp ñu ngi di ho ngi oo kilifaay pay bi yépp suñ tuddee duñ bëgg dajal duñ mën a dajal ndax ñëpp bëgg nañ leen a tudd ci suñu làmmiñ waaye suñ xol tudd na leen ñu ngi oo ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mu mel ni ci xalifa bi nga jógee te yaakaar naa dana xiir mbokki taalib yépp ñu dem teewe ji bés boobu noonu xam ne bésee ci bési yàlla yi loo ciy fàttali yoon suñu mbokk taalibe yi. waaw ci xalifa bi lañ jógee léegi. comme ni nga ko xamee. Hmm. lépp lu ñuy def ci ndigal lañ koy teg. dem nañ yeeslu ndigal li ñaan ko ci gàmmu gi ndigal ñaan ko mu defal ñu ci ñaan pour mu am tawfiix am lu kawe niñ ko bëggee joxe na ci ndigal ñaan na ci am nañ ci yaakaar. naka noonu lañ ko defee ci Cheikh Mouhamadou Lamine dem nañ ba néegam ñu wax ku ko. ñaan na ci ndax moom mooy suñu lépp ndax moo doon lépp Cheikh Ibrahim ñas Niass tax yooyu yëpp dem nañ ci ñaan nañ ci ndigal. incha allah fàttali ñu bés bi. bés bi incha allahu la 23 la juin ñi ngi séntu ñëpp bawuñ kenn ñi ngi oo Thierno Ahmadou Ba Bambilor moom it wax dëgg yàlla suñu jaati suñu dalal kan koy ñaanal yàlla yàlla dimbaleel ko boppam moom ak rakkam alaaji Malick ak waa dëkk bi yëpp macha allah allahuma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasr al-haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin